Sëriñ Tuubaa ñu di ci jànge ak dëggu mu doon misaalum dëgg ci kaw suuf xam ngeen dëgg ci la asamaan suuf taxaw dëggu ci wax dëggal ay waxam moom Sëriñ Tuubaa moo sabab ñu génnee ko yóbbu ko Gabon mu am fa juróom-ñaari at dëggugum dëggu lépp luy nuru jafe-jafe bu ko gaar ci dundub addunaam la la ak dëggugum dëggu moo ko sabab ndax bañoon na lu dul noona wax lu dul noona bañoon na ko ba àgg ci li ñuy tuddee ak taqiya ci diine nga xam ne diine nangu na buñ la naree bundu xataal mbaa ñu nar a jël sa bakkan ci wax loola nàngam te nga xam ne loolu du ak dëgg nga diine may na la nga wax ko ci saw làmmiñ tam bañ àgg ci sa xol nga xam nit ki buñ ko naree rey ci ni ko weddi mën naa wax ña koy weddiloo ni leen weddi naa wax ko ci aw làmmiñam te agul ci ab xolam du ko wàññi dara waaye ba ci loolu sax Sëriñ Tuubaa daf ko woon moom rus na di yëkkati kàddoom di wax lu dul noona ak doonte faatu bakkan moo ko cay fekk ndax e, la muy xool diggante ma boromam moo ëpp ci moom ab dund moo gën a foor ci moom dund te dund nit ki lu mu jaayee ab dundam rek loola for na ci moom moo tax ma ni dëgg ak jafandu ci ak dëgg ak baatu dëgg moo waral ñu exil ko yóbbu ko Gabon mboole bu nu xataal bu ko tubaab yi dex def ak dëggoom moo ko sabab waaye nag dadi dëgg du indi lu dul aw yiw ak donte indi na la luy niru aw ay aw yiw rek lay indi ndax wépp ay woo xam ne aljanna moo ne ci ginnaawam woo ay du aw ay waaye fenit du andi lu dul aw ay donte aw yiw la la andi ci li ñuy gis ci kaw wépp yiw woo xam ni safara mooy nekk ci ginnaawam yiw woowee du aw yiw kon nit ki dafa war a jàng dëggu ak donte da cay gar bakkanam ci la muy dëggu loolu mooy dëgg dëgg dina mu doon lu ñu war a jàng ci njàngale Sëñ Tuubaa war koo jànge ci ay melokaanam war koo jànge ci ak gëmam yàlla ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ibnu abbas ne ko waalam anna ma asaabaka lam yakun li yoxte ak wa ma axtaaka lam yakun li yusibaka nit ki bu amee bu ak ngëmam àggee ci mu xam ne lépp lu ko jot yàllaa ko dogaloon ca azal te mënu ko woon ñàkk jot dana sax ci ak dëgg jéem a ci lim nekk nit ki bu xamee ni lu ko mooy yàllaa bindoon ni lii du ko dal waaye ay pexeem ak i layam mënta tax loola mooy ko bu fekkee tawxiid boobu nekk na ci moom mu gëmee ko noonu euh, dara du ko mën a joo ci muy dugg ci ay lexoor yoo xam ni ëllëg ki ci biir daan yàlla mën ko ci fekk ma ni Sëriñ Tuubaa euh, loolu dañ ko war a jàng ci moom muy ko googu ci mujjug njaareem Sëriñ ba si mi ngi nettali ni dafa am kenn ci mbokk yi koo xam ni dafa am jafe-jafe bu dox digganteem ak tubaab yi waaye mbokk yëpp takkatoo nee nañ jàppale suñu mbokk ba tubaab bi amul jaaxle ngir xam ne dañ koo tooñ te mbokk yëpp takkatoo nañ jàppale kee ba mel ne ñoo nekk ci dëgg waaye tubaab bi ci jikko yi mu xamoon ci Serigne Touba ci ak dëggu da leen ni jëmmi Serigne Touba moom bu seeree ànd ak yéen ci ni seen mbokk bi moo nekk ci dëgg bu boobaa danaa nangoo xam ni moo nekk ci dëgg ma bàyyi li ma jàppoon waaye ba ñu demee ci Serigne Touba bañ ko ko waxee ne ko kat tubaab yi boo ci jàppul danañ ko bund xataal ndax tuumaal nañ ko nangam nangam sëriñ bi dañu leen du ma seere lu ma xamut du ma seere lu ma xamut la leen wax li mu ne du seere lu ma xamut ñu lijjanti ko ba mbokk ma tooñ waaye bañ demee ba ca gouverneur bu mag ba ca ndakaaru da leen ni mbokk mii dafa jege sëriñ tuubaa ci ak mbokk te sëriñ Touba gouvernement France jaar nañoo ak moom foo xam ne ruseti ruseti nañoo yëkkati si diitu jaam te kii jege na ko jege koo xam ne saa bu ñu demee ba def ko dara dana mel ni moom lañ ko def te ruusati nañoo def lépp dara lu koy naqari ndax fi ñu jaar ak moom fépp dem nañ ba am lu ñu leer ci ni wax dëgg ñoo ko tooñ waaye moom euh, defut lu dul noona waxu ko léegi loolu kon ak dëgg moo yóbbu Sëriñ Tuubaa ci nooni boppam sax danañ nangoo ñëw bàyyi ab àtte ci loxoom mu mel ni loolu it ab dërs la bu ñu war a jàngi euh, ci moom jëmmi sëriñ Bachir ci boppam di nettali ne moom itam ay taalibeem da ci am ñu jote ak ñu jote ak ñeneen ba yoon am ci aw yoon nee na biñ ko woo mu war a wuy ji dafa dem ci sëriñ Touba wax ko ko waaye sëriñ bi ne ko li ma lay dénk mooy boo demee fexeel ba lu dul dëgg bu ko wax nee ba ma demee jafandi ci baat mu ma waxoon lañ ma laaj te xawma ko ma ne leen ma ko loola indi na ak yombal lool ca jafe-jafe yooyu waroon a am kon sëriñ Touba euh, ci occasion weer koor yi danañ ci indi dara ci ay eh, njàngale ci yu mel noonu muy dëggu googu ak jikko yu rafet ak bañ rus ak bañ a gàcceel nit ak neex àndal yooyu yëpp nii dañ ciy occasion ne ngir jàngale ko ci ay jikkoom ngir nit ñi war koo mën a jariñoo kon ñu daaneele xasida gi nga xam ni sëriñ bi def koo def tënke ko fi chahri ramadana aama alsasin mu wax ni sunu borom tabaraka wa taala dafa bégal ñi ñi siyaare si kii woy xasida gii mb mbég li bégal googu mu leen bégal nag ci la woye xasida gii ngir jot li leen mbégte moom yi bachara allahu tabaraka wa taala زوار ناظم هذه القصيدة وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات معا في شهر رمضان هاما السسن muy ci weeru koor atum 1331 ci gàddaay gi ci la defe woon xasida gi wax ne sunu borom bégal na ñi ñëw di ziyaare si ki woy xasida gi ci weeru koor mbégte ma mu Sëriñ Tuubaa jottali leen ko mi ngi tàmbalee xasida gi ci faaza alladina haafadu ala siyaam shahrin bihi o liqa baabun lil iyam mu ni euh, ñi nga xam ni wattu nañu wattu nañu di woor weeru koor texe nañu ndax weer la woo xam ni dañ ciy tëj bépp buntu ayib bépp buntu bu war a mën a indil nit ki ayib dañ koy tëj ci weer woowu kon ak texe ñeel na ñi nga xam ni wattu nañu weer woowu ci woor ko daal cay teg ni yaraw na afdala futurin fi lxubur danañ gis ngën ji ndogu buñ duggee ci seen i bàmmeel wa fi lqiyaamati ak buñ demee ba ca bisu taxawaay ba danañ fa gis ngën ji ndogu minal muxnil kabir lu bàyyikoo ci yàlla mi aji woomal yàlla mi aji ri te ca ni shahida xaaliqul wara lissaa'imin fi ramadana bi ridaahu lqaa'imin wax na ne sunu borom day seereel na ñiy woor weeru koor di taxaw guddi yi seereel na leen ngërëmam nga xam ni kon euh, fonk bëccëg yi di ko woor te guddi yi loo ci mën nga taxaw ko euh, ginnaaw sunu borom seeral ne ñi koy def ngërëmam te ngërëmul yàlla mooy li gën a rëy ci lu ab jullit war a sàkku ndax wa ridwaanu min allahi akbar la alquran wax mu saxal ne mbooleem ñi nga xam danañ woor weer wi di taxaw guddi yi sunu borom seeral na leen ngërëmam kon loolu ba tey wenn bayit la boo xam ne war nañ ci jànge ak góor góor lu ci biir weeru koor ndax ngërëmul yàlla lool yi yàlla saxal ni ñoo ñi la ko fa bàyyil nu mu boole nu ca yàlla na nu ci yàlla defal kàttan ci barke a Cheikh Xadim mu tekki ni xibaatuhum inda al ilahi waafira naalul muna fi darajaat al axira mu wax ni seeni may di lu rëy lay doon lu baree bari lay doon fa yàlla danañ am seeni mébét yiñ mébétoon ci àddina yëpp yët ànd ak daraja al axira rudda li xayrihim xasaabu naari mboolem ñoom ñooñu di góorgóorlu di woor weeru koor wi sunu borom dana leen sori lal mbugarum sawara te duñ ko jëndee ab dërëm baa ñu koy jëndee ab dinar rafaahum bi ramadan rafiu yàlla mii aji yëkkatee moo yëkkati julli yi woor weeru koor ci biir weeru ci weeru koor nafaahum bi salawaati nafiu dana leen jariñ julli ya ñuy julli ci biir wooru koor wi sunu borom dana leen ca jariñ njariñ li gën a màgg munan nafuusil baaqi mu ne yàlla mi aji des dana leen jox lépp lu ay bakkan daan médét zul aradina sabi wetti baax yi te yàlla moomu di aji des mooy borom juróom-ñaari suuf mooy borom juróom-ñaari asmaan yi diyaafatul baaqi la dal jinaani tamxoo ana assawmi bimtinaani mu ni nganale ga sunu borom di ganale eh, ay jaamam ca aljanna di dana far coonab koor ba nit daan woor ajru alladi maa indahu laa yanfadu munu yoolub yàlla mi nga xam ni la ne fa moom du jax mukk ajrun kabirun yool bu la boo xam ni maataraahu nafadu ak jeex du ko gaar nafaau siyaami shahri fi daarayni yakfiikum al aarayni wa naarayni mu ne njariñul weer woor weeru koor ci adduna ak alaxira dana leen fegal ñaari gàcce yi muy gàcce gi adduna ak alaxira dana leen fegal it ñaari sawara yi muy sawara adduna ak alaxira teg ca ne abadtumullah alkarim al akrama bi xayri shahrin xad yaquudul karama jaamu ngeen yàlla mi nga xam ne ku tedd la mooy ki gën a tedd jaamu ngeen ko ci ngën ji weer woo xam ne dana leen wommatal teraanga ila siwaakum tantahi niiraan kon na ngeen gëm na ngeen am yaqiin ci ne sawara moom feneen lay jëm fudul ci yéen yi nga xam ni jafanu ngeen ci di weer weer ker yowmal qiyaamati kadal xusraan naka noonu pertement yi kuy perte yaay perte waaye yéen ñi saxaloon weer weeru koor te sellal ko yéen perte moom mucc ngeen ci malektumul nu foo safin nahaari yàlla dimbali na leen ba moom ngeen seeni bakkan ci bëccëg yi waaye nag yan xooli xayrikum daw intihaari ñi nga xam ne dañoo jóg ngir gëdd ku dég ku ci aw yoon bi feneen lay jublu fu dul ci yéen ñi nga xam ne saxaloon ngeen woor weeru koor abwaabu jannati naimu futtihat li saa'imina wax na ne bunti jannatu naim ubbil nañu ko ñi woor wal jamiun fatahat mboolem bunti àjjana yi ubbiku nañ ñeel ñu ñi lakum ladal futuri wal liqaa'i yaa qawmi forhataani bittiqaa'i yéen sama nit am ngeen ñaari mbégte mbégte mel ni bu ngeen di dog bu ngeen di dog da ngeen dajeeg moom mel ni mbégte ma ca des nag bu ngeen demee ba dajeeg seen borom da ngeen dajeeg moom waaye sa taalamuuna anna rabbakum karim da ngeen xam nag ne seen borom day ku tedd la wa anna indahu ujuran la farim da ngeen xamit ne am na yool yu dul jax mukk ay fay yoo xam du jax mukk chakartumullaha ala shahri siyaam sant ngeen seen borom ci woor weeru koor sa tadxuluuna jannatan duna iyaam da ngeen dugg aljanna ci lu dul benn ayib kon xasida gi Sëriñ Tuubaa def ko bégalee ñi ko daan ziyaare si ci weeru koor ak ñi ko siyaare si wut sax ci yi góor yi ak yu jigéen yi ñépp mu boole leen bégal leen ci mbégte yooyu nga xam ne sunu borom dig na ko képp ku fonk weeru koor farlu ci di ko woor ma daanee la ko waxtaan wi ngir bëgg ñu def ko mu di sunub yóbbal ci jafandu ci weer wi te fonk ko te warmaal ko te réyal ko su ni sëñ bay jaxate waxee nag muñ ku muñ ku muñul doo ko man kooree njariñ moo di aw yiw waaye kenn du ko muñ ku dul ku gëm yàlla gëm yonen ba séenu ca pay yalnan yàlla boole ci ñi ko gëm ngëm gu dëggu yalnan yàlla boole ci ñi gëm yonente bi ngëm gu dëggu yalnan yàlla boole ci taalibe Sëriñ Tuubaa yi nangu seen taalibe wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu